mission ko da ko matal sëkk kon tey jii euh, ñu fas yéene dalal benn boroom xam-xam boo xam ni miin nañ ko ak ak Cheikh Mouhamadou Makhtar Kébé di muhadir di conférencier bu mag yaakaar naa ab liggéeyam ci réew mi ak ci euh, jotaay yi ak ci ndaje yi mel nii miin nañ ko muy boroom xam-xam boo xam ni euh, yitteem yépp mooy tasaare diine di tasaare lislaam loola taxoon waa commission bi tànn ko ngir mu indil ñu benn thème boo xam ni euh, réew mi wala adduna bépp soxla na ko ndax kilifa kilifa diine euh, rôle bi mu wala suyee ci am réew ngir jàmm am fa loolu moom lañu war a waxtaane dawru soama ak diine fil istiqraaril amn wal yi mooy thème bi bu ko defee buñ noppee danañ euh, jox Serigne Sambuso mu indi ci ay euh, ay leeral mu def ci ay commentaire ndax jotaay bi dañuy def ajuma bu jot ñu euh, tudde ko kenn tey ñu jëloon euh, daaira daairatu rawdu rayahin bokk na ci mu muassasaat yi nga xam ni ci jamonoy Cheikh Saliou Mbacké la sosu woon ci yaatal diineem ak bëgg lépp tasaaroo ci riaayam la taxawee ba mu agsi fii ñoom lañ ko tudde woon tey sëñ Sam Bousso insha allahu taala dana fi jël kàddu Euh, wutu leen fi ñoom ñëpp bu fi xajee euh, boroom xam-xam al oustaz Cheikh Abdoul Ahad Sané moom itam euh, danañ ko jox kàddu bu ko defee moom boroom xam-xam la mu indil ñu ay ay jàngat yoo xam ni danañ ko mën a génnee ci li fi rote insha allahu taala kon al fadilatul oustaz tafaddal mashkura bismillah wa sahbihi wa sallim subhaanaka allahumma laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka anta al-aliimu al-hakiim allimnaa rabbanaa maa jahilnaa wa dhakkirnaa maa nasinaa wa zidnaa ilmaa wa ba'd assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh nangu sant yàlla bu baax moom mi ñu defal tawféex defal ñu xéewal mais nu bokk ci jotaay bu barkeel bii di ko ñaan mu nangul ñu taxawaay ful li nuy fay ci jëf yu baax yi ñuy def ci koor bi di nuyu kilifa yi fi teew taaral jotaay bu mel nii sëñ Cheikh Abdul Qadir Saleh Mbacke sëñ Cheikh Mourtada Saleh Mbacke bu nu leen joxee sunu nuyoo ñu jaaralal ñu sunu ziyaara ci sëriñ Cheikh mu yeggal ñu ko ci xalif bi Cheikh Mountakha Mbacke ñaan yàlla ñoom ñépp yàlla taxawu leen yàggal leen fi ñu nuyu sunuy bokk sëñ Suhaybu Kebe bi nga xam ne wëllëre la wu yàgg di dox ci lu baax ak luy benn lu jullit yi ak di leen dajale di nuyu suñu mbokk daara sëñ Abdul Ahad nga xam ne daara xam-xam ak jotaayu xam-xam moo boole lu yàgg te ñu dajawaat fii tey di feddali wëllëre woowu xam naa jataay bi li tax ñu boole ma ci mooy wane ne jullit ñi seenug bennoo ak seenug jàppoo ndax bu doon xam-xam rekk jàpp naa ne bari nañu ko mën a taxawoo ci barab bi waaye bu ñu ma woowee ngir ma bokk ci jataay yi du xam-xam bu nu yaakaar ci man waaye feddale kóllëre ak jàppante ak wanale jullit yépp ci seen daara yu wuute benn lañu dañu war a jokkaloo mbokk yi nga xam ne loolu ci ñoom la jaar noo ngi leen ciy sant maa ngi ànd ak suma mbokk sëñ Abdoulaye Ciss muy suñu chef de quartier moom itam mu ñëw ngir bokk ci yiw wi ak ziyaara bi tomb bii nu bëgg a waxtaane nag tomb la boo xam ne am na solo ci réew mi mais am na solo ci àdduna bi ndax bu fekkee ne àdduna bi am na lu ko màndargal bokk na ci li ko màndargaal ñàkk dal ak yëngatu bu metti dëkk yi amoon yëngatu yëngatu bi yokku na dëkk yi nga xam na sax ci dal lañu leen xame léeg am ñàkk dal bu jaaxal ñi ko bokk ba léeg-léeg di ko utal pirin yu bari léeg-léeg ñu tombe ci prix mu baax léeg-léeg duñu tombe ci prix mu baax waaye li ñépp seetlu mooy ñàkk dal gi moom léeg mu am ba léeg-léeg mu jéggi sax dayo ci façon boo xam ni dana jaaxal ñu bari loolu ñépp am nañ ci sas waaye kilifteefu lislaam gi seen sas daf ci gën a feddaliku te ñoom rekk sax ñoo am saafara si ndax bu fekkee ne kilifteef dafa am jeexital ci njaboot dañuy wax ne kilifteefu lislaam moom la jeexitalam gën a xóot ndax yi kilifteef di def moom dana ko def ci sañ-sañ ak ci wéttali waaye dafay yegg foo xam ne fii kilifteef bu dul kilifteefu diine du fa yegg mooy dafay jeexital ci ruux te nit lu yegg ci ruuxam rekk mun na ko yëngal ci dimension boo xam ne du yegg feneen dañuy wax ne yiy motive doomu aadama ngir mu jëf bari na waaye yiy xiirtal doomu aadama ci jëf yépp li ci gën a xóot ëpp ci jeexital mooy li nga xam ni ci diine la jóge di dem ci ruux ndax lu yegg ci ruuxu doomu aadama rekk day yegg ci léppam daf koy moom di ko defloo ci bu sañee ak bu sañul moo tax lii nuy waxtaane nii muy daluk réew mi walla daluk àdduna sax bu la neexee lan la ci kilifteefu diine di mën a def ngir loolu gën a jàppandal ñun dañuy wax ne dal walla jàmm bu la neexee ci xéewalu yàlla yu mag yi la bokk nga xam ni ku ko am am nga xéewal gu réy ku ko ñàkk itam di nga yëg ni ñàkk nga xéewal gu rëy te dañuy wax ne ñaar yi fi doom aadama di def yépp ci kaw suuf mu di jaamu yàlla ci ni nu koy waxe ak dundal suuf saytu ko ngir nekkinu doom aadama jàppandal ñu tuddee ko al ibadatu wal umran wa ma xalaqtul jinna wal insa illa yaabudun wa ansaakum min al ardi wastaamarakum fiha nga xam ni jullit bu xëyee ci ñaari lef yooyu rek lay yëngatu lefu digganteem ak boroomam mu rafetal ko lefu ñaareel bi mooy pénc mi nga xam ne ci la bokk te yàlla wàcce fi xéewal yoo xam ni kenn ku ne mën na dund ci xéewal yooyu ba mu doy ci yow sëg nan la ñuy fexe ba loolu jàppandal ñu tuddee ko al umran wax ne ñaar yooyu bu mu ci mën a doon charte la ngir mu mën a dox ak dal am jàmm am bu dal amul yokkute réew du am bu jàmm amul aussi jaamu yàlla bu ñu tal du yomb moo tax borom bi bi muy soññu waa Quraysh ngir ñu delloo ko njukkal jaamu ko li mu leen soññoo mooy xéewal gu mag googu mu leen defal te xéewal googu li leen wër yépp amuñ ko falyaabudu rabba hada albayt alladi atamahum min juin wa amanahum min xawf mu ne leen yéen a ngi ci ci ci keppaar goo xam ni ñi leen wër kenn xelam dalul kenn amul jàmm yéen seen xel dal na am ngeen jàmm bokkuleen ci xeex kenn attaqué wu leen yéen a ci désert boo xam ni dara saxu fi waaye seen dund doy na sëg bon lu tee ngeen delloo ki leen defal loolu jukkal te jaamu ko donc xéewal gi mu leen soññoo nga xam ni mooy xéewal gu mag gi nga xam ne moo leen ko defal ñaari xéewal la mooy xéewalu jàppandalu dundin ak xéewalu jàmm ak dal gi nga xam ne ci xéewal yu mag yi la bokk yi jàmm ak dal ci jubluwaay yu mag yi nga xam ni mooy jubluwaayu diine la diine ji li mu bëgg a amal ñu tudd ko almaqasid ay jubluwaay yu mag benn ci jubluwaay yu mag yooyu nga xam ni daf ko bëgg a amal yàlla yebal ci ay yonant wàcce ci ay téere tëral ci ay tëralin yu ñu war a topp yu ñu war a bàyyi loolu lépp mooy nu am pénc walla keppaar walla dëkk boo xam ne bi bu dal la mu mel ni dëkk boobu keppaar googu pecc moomu pour mu dal mooy kenn ku ne li nga moom sa àq ñu jox la ko la war a tegu ci kaw ci sa tegu tego tegandaay ñu teg ko ci sa kaw loolu bu amee dal day am jàmm day am déggoo day am moo tax boroom bi di wax naan laqad arsalna rusulana bilbayinaati wa anzalna maahum alkitaaba walmizaana li yaquuma annaasu bilqisti nee na yonente yi defar pénc rekk laa leen yebale li nuy li nuy jàngale lépp pour nit ñi am comportement bu tax ñu am jikko joo xam ne ji day tax dëkkin wi ànd ak dal ànd ak jàmm te loolu mooy li ñu tuddee alxist mooy maandu parce que dafa am bunt bu ñu la tëjal bu ñu la waroon ubbil du am yëngatu boo gis rekk ci penc am na lu ko waral benn ku tayal di tooñ créer situation comme ni muy xewee ci ci ci yu bari walla yamale gu yemamaay gu matul goo xam ne gii dana am ñu yëg ne am na tooñeel gu yàgg gu tegu ci seen ci seen kaw goo xam ne gi tooñeel googu war nañ ko dindi bu fekkee ne amul jumtuwaayu maandute bu ko mun a dindi amul buntu waxtaan yu ko mun a faj léeg-léeg mën nañu jëfandikoo kàttan gu teguwul ci yoon goo xam ne gi mën na jur yëngatu gu metti ci ci ci pénc yi mën na nekk ci wàllu politique mën na nekk ci wàllu social mën na nekk ci wàllu économie mën na nekk domaine yooyu yépp léeg sax mu nekk ci wàllu diine mais mun na nekk ci domaine yooyu yëpp benn bu ci ne am na loo xam ni njàmbat lu yàggalal goo xam ni li ko in li ko li ko saxal mooy maandute yemale kenn ku ne yëg ni bokk nga kenn ku ne yëg ni jox nañ la sa àq bu manqué loolu dana wàññi loolu moo tax yonent yi nga xam ne naka jekk ñoom la yàlla teg ñu war a régler àdduna àdduna ku ko ku ko ku ko ku ko régler li may wax ni nañ ko téye te reglewuloo ko ci kilifteefu diine li la tabb diine diine tabb la ci doxalin woowu mënul régler problème mu justice sociale bu yàgg mënul régler yemale gu yàgg mënul regle kenn ku ci ne yëg ne sa ruux système bi mu ngi ciy liggéey parce que dañuy wax ne pénc moo gis ay nit la defarug nit gi nu mu gën a jage pénc moomu di gën a jag mais bu fekkee ne ay tëralin la ak luwaay yi xeli doomu aadama di tëral loolu mooy la rub ibnu amir doon tuddee jawril adyaan ah ji naa li nuxrij min ibadati al ibad ila ibadati rabbil ibad wa min jawri adyan ila adli loolu yaa ngi koy dégg ne tëralin yi nga xam ne ci bànneexu doom aadama la jóge ak gis-gisu àddunaam bu xat tëralin yooyu dafay créer ñoo xam ne ñi dañuy am ay xejj ci dara ay privilégié bu nu ko waxee ci ci ci tubaab loolu lu mu gën a bari ci penc ci gën a bari ci société muy indi yàqu-yàqu moo tax dal googu yitte bi mu am tax na maam sunu Ibrahima aleyhi salaam bi muy ñaan ñaari yëf yi nga xam ne benn bu ci ne dafa am dafa am njariñ dafa dafa mënul ñàkk ci nit mooy mu am jàppandalu dund mooy wërsëg mooy mu am tawxiid benn bu ci ne def ko lëkkale ak ñaan dal ak jàmm mais mu jiital dal gi ak jàmm ji rabbi jal hada baladan aminan warzuq ahlahu min athamarati man amana minhum ba aya bi man amana minhum billahi ba aya bi jeex beneen bi rabbi jal hada albalada aminan wajnubnii wa baniya an na'buda dal asnaam gis nga bi muy wax ci am nu bi muy wax ci dal lëkkale ko ak wërsëg lëkkale ko ak tawxiid dafa ñaan dal ba pare ñaan wërsëg ñaan dal ba pare ñaan ñaan dal ba pare doon a ñaan tawxid mooy mujj ci mucc ci bokkale parce que ñaar yooyu benn bu ci ne bu dal amul loolu pour yegg ca du yomb bu nu nekkul ci stabilité nekkul ci jàmm du nu mën a liggéey lu créer yokkute ba tax wërsëgu yokkute wu yegg ci ñëpp bu nu nekkul ci dal ak jàmm mën nanu am situation wu même fitna sunu diine sax dikkal ñu moo tax alquran di wax naan wal fitnatu ashaddu min alqatl nekk ci ñàkk dal ba taluloo sa diine nee na loolu moo gën a rëy sax situation wu tuur deret ak tuur bakkan alquran di feddali jàppaloo wala dugalante gi am ci diggante ak jàppandal ci koom-koom ak yokkute ci réew ak dal goo xam ni dana tax nit ñi tal seen bopp bee mën a nekk ci situation wu jëm ci liggéey ndax dañuy wax ni lii ñu tudde yokkute réew ñu koy wax ci baatu tey ñu koy tudde développement du dara lu mooy ay jëf yu bari yu ñu dajale ci ay waxtu yu tegaloo yoo xam ne yi dogul benn yoon meññet ma muy jur meññet ma muy jur mooy yokkute mooy lu liggéey bi gën a bari ñi koy def gën a bari mu ànd ak ñooñu neexoog seen boroom loolu di gën a jur li ñu tudd développement moo tax alquran di ko tuddee barakaatu minas sama jëfu doomu aadama kese te neexuwul ak boroomam li muy andi ci pey alal ju bari mën na am mais alal ju bari joo xam ne ji du ñépp koy jariñoo alal ju bari joo xam ni mën na am sax mais nit ñi du ñu am teeyu bakken gu tax alal jooju jariñee jariñ leen laqad kaana li sabain fi maskanihim aaya jannataani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum waskuru la baldatun tayibatun wa rabbun gafur fa aradu ah fa arsalna alayhim saylal arim ba aaya bi ja sabab bu fekkoon na suñu langage tey la dañuy wax ne dañu liggéey ba am abondance économique c'est-à-dire comme boo xam ne bii lu waay laal rek am loo dunde xam nga fii dañu lay wax croissance bi chiffres yi ni mu toll li am koom ci àdduna mbokk yi bu fekkoon ne nekkoon na ci loxo yoo xam ne yii dafa déggal boroomam bon kenn ku ci ne am nga lu faj sa soxla ba ngay dimbalee ndax bu yàggul rek bi crise bi amee ci ci ci ci tugal réew yu mag yi rek bi ñu dajalee ci liquidité dajale nañu lu mat mille milliards de dollars loolu bokkul ak li tëdd ci banque yi nga xam ne bu ñuy wax lim bi nan la toll du ñu am chiffre yu ñu ko waxe ay trillion la ñu lay wax cest à li nekk ci àdduna ci koom may na àdduna kenn ku ne nekk milliardaire di dem ak ñëw waaye loolu bu amee te am ñu bare bari ñoo xam ne ñu loolu gisuñu ci seen bopp mais loolu am na lu ko waral mooy innal insaana la zalumun kafaar ja ca suratu ibrahim bi nga xam ni nit moo jël akku mbokkam walla nit moo nasax ba jëlul li mu moom ci xéewal yi ko boroomam defal donc dal googu nga xam ne moom la ñuy moom la ñu koom boroom bi moom lay wax wa daraba llahu matalan qaryatan kaanat aminatan mutma'innatan yaatiha rizquha ragadan min kulli makan fa kafarat bi an'umillahi fa adaqaha llahu libaas aljuu'i wal xawf bima kaanu yasnaun dañuy wax ni situation bi xew ci àdduna situation wu comportement doomu aadama la ndax borom bi ñaar yi mu diggaale ak doomu aadama yëpp def na ko mooy alhuda la diggaale moom mooy wan ko fi mu war a dem ak li mu ko sant mooy wasaxara lakum ma fi samawati wa ma fi ardi jami'an minhu mooy mu tàggatal ko lépp loo xam ne lii bind na ko mu nekk ci biiram te mu sant ko rek huwa ansaakum min al ardi wastaamarakum fiha loolu nag pour mu mën a am nit kooku dafa am fu nu koy jaaral dal googu dafa am yu tax léegi xelu ñu bari dalatuñ ci am na yu koy menacé bu fekkee ne kàddu gu baax na noonu mooy bi ci jëkk ci menacé dalu société yi dalu suñu réew bu la neexee mooy noo ngi ci àdduna boo xam ni dafa jëm ci di gën a jëfandikoo doole di gën a soxor di bari xadaat loolu adduna bi yépp dafa mel ni yoon mooy parparloo ci péete boo xam ne bii léeg-léeg day jéggi dayoo ba ki nga bokkulul gis-gis li ngay bëgg rek mooy mu jóge fi doo gis ci moom lu baax doo dégg ci moom lu baax sofaanam rek ngay wër di ko te di ko di ko di ko di ko feeñal nga xam ni man daa ila asabiyatin fa laysa minna yonent bi moo waxoon ni képp koo xam ni sa liggéey mooy fexe nit ñi kenn ku ci ne doo xajoo sa moroom ci parparloo ci waaso ci parparloo ci diine ci parparloo ci tariixa ci parparloo ci kuréel boo xam ne bii xel lalu ko saadatu mufattis tafadal xam-xam lalu ko yar bu ñu mottali aussi lalu ko yooyutam ci yiy menacé di di di di ruur di yëngal jàmm ji nga xam ni wala dal gi nga xam ni amandi nanu ko <coughs> ni nu fexee aussi <coughs> ba àdduna bi ñépp di waxandoom bu jëkkoon àdduna kilifa yi ñooy wax ak boroom xam-xam yi ak ñi am cër mais léegi àdduna bu mujje bi ñu ubbi nii ñéppay waxandoom kenn ku ci ne mën nga toog yor sa portaabal bu ndaw wax ak àdduna tëju sa néeg walla nekk ci sa keppaar enregistré li ngay enregistré tasaare ko nga xam ne ñiy wax doo leen xam doo xam ban statut lan moo leen may ñuy wax ak nit ñi parce que kenn ku ci ne dafa am sa sa sañ-sañ fu mu yem am na ku mën a wax ak waa këram mais kàddoom ci këram rek la yem parce que responsabilité am génnewul bunt këram am na ku mën a waxu quartier am na ku mën a waxu dëkk am na ku mën a wax adduna parce que ut sañ-sañam kilifteefam yegg na foofu donc fu kilifteefam yegg rekk kàddoom mun na fa yegg waaye léegi noo ci jamono boo xam ne bi ñi warul wax sax ñoo yor jumtuwaay yi di wax bu fekkoon ne dañu yem sax ci yoru jumtuwaay di wax di wax loo am njariñ sax xëy na mu tane mais lu ci gën a bari wax ji lii ci réer la tegu lii ci ñàkk yar la tegu ku ñu yarul bu waxee wax musiba ku xamul bu waxee wax musiba te ñooñu ñoom la ñuy moom ñoom la ñoom la ñuy gis naa benn waay boo xam ne bii léegi dafa am dafa am dayoo amul dayoo sax mais de toute la nit ñaa ngi koy topp ñu jox ko audience lu ko ko jox gën a ñaaw nit ñi làmmeñ rek koo xam ne kii loo wax rek làmmeñ wu ñaaw la nga koy nga koy nga koy jox koo diggaale rek koo diggaale ku sa yoon nekk ci moom ak ku sa yoon nekkul ci moom mais ñooñu fexe nanu de ñu jox leen lu tax ñu leen di déglu parce que jumtuwaayu jamono bi indi na lool alors loolu aussi bokk na ci liy yëngal dal gi ak jàmm ji bokk na ci liy yëngal dal gi ak jàmm ji aussi xëcc ko politique bu àndul ak sago nga xam ne ki koy def day jëfandikoo lu ne ngir am tanoom ci wàllu politique donc seexluwul féewale ngir am li mu bëgg ci wàllu politique seexluwul aussi boole ngir gën a moom boppam nga xam ne yooyu yàlla ngi ñuy dimbali yii dama ko def laytaay ngir ñëw ci waaw kilifteefu lislaam bi lan mooy taxawaayam ngir jàmm jooju ñu amal ko bu ñu ko amalee ñu saxal ko bu ñu ko saxalee ñu sàmm ko ñetti phase jàmm dañu koy amal waxoon naa ne condition yu koy amal bokk na ci màndute gu matale bu nu ko amalee dañuy fexe ba mu sax mooy lépp loo xam ne lii daf koy yàq ñu ñu ñu ñu loolu ñu ñu dindi ko lépp loo xam ne lii daf koy yokk doole aussi ñu di ko andi mais dañuy fexe aussi ba di ko aar mooy di seetlu di teel a wax boroom xam-xam yi dañuy wax ni fitna bu ñëwagul ñu néew ñoo ko xam mooy ñi yàlla defal ci ñoom gis-gisu leer di nga gis mbir moo xam ne mi ñu ngi koy ràbb dajaloogul nga xam ne mbir mii ñuy ràbb dajaloogul de bés bu dajaloo ci kanam fii la ñu jëme ñu ne bu fekkee film dafa dëgmal ku yàlla def ci yow leeru njub yaa ko mën a gis nee na bu xësee ba yëgsi nag ku ne mën na ko gis di ki wax waaye ñu néew a ko mën a faj bu xësee ba yëgsi ku ne mën nga ko gis di ki wax di ko analyser waaye nee na ñu néew ñooy ñu ko mën a faj ñi koy faj nag waxoon naa ko sànq bi may tàmbali kilifteefu lislaam gi moo ci jiitu kilifteefu lislaam gi ñaari rôle bi ci jëkk mooy rôlu rôlu démbam cest à li mu def ci li weesu ba nuy wax ne senegal am na aw doxalin woo xam ne wii senegal rek la am hmm? ñuy ba da ngay dégg ñu ne dafa am lu ñu tudde modèle sénégalais parce que da amul fenn ci àdduna walla fi mu am bariwul waaw ah, c'est-à-dire yu yu war a tax ñàkk déggoo am bari na fi mais yooyu dafa am liggéey bu ñu def ba loolu amul jeexital bu rëy ba këree ñàkk déggoo loolu ab liggéey bu yàgg la ci cosaan ba tey ñëw bu ko defee ma ma teg ci seen rol seen liggéeyu tey nga xam ne ñaari phase la mooy kilifteefu diine gi liggéeyam démb ba tax nu am nekkin wii nga xam ne néew na foo ko gisee loolu mën naa ko tënk ci ay tomb yu néew bi ci jëkk mooy ni ñu fexe ba tabaxaat senegale bi ba kilifteefam mu toxal ko ci kilifteef goo xam ni mënoon na andi xëccoo yóbbu ko ci kilifteef goo xam ne gi kilifteefu ruux la xam nga ku ne xam na ne avant suñu suñu kilifa yu mujj yi fii ci wàllu diine nit ñi ci seen cosaan ak ci seeni askan ak ci seeni kuréeli pénc yooyu rek lañu lañu lañu askanu woon di ci dox boo demee tey ci ci ci réew yi ñu wër bari na ñuy xeex ngir waaso dañu bokkul waaso nii rek parce que kenn ku ci ne sa waaso ngay wane ne ci laa bokk ci nit ñi te yooyu ay péete la yoo xam ni dafa gaaw a yóbbu nit ci xëccoo péete boo xam ne bi ruux lalu ko ak defarug bakken rek féete boobu mooy sañ téye nit xamal ko fi mu mën a yem ci féete dana bëgg li mu bëgg dana ko fonk dana ko sàmm dana ko jaral lu ne waaye dana bàyyi xel ko aussi que ni am na mbokk jullitam yoo xam ne yi am nañu seeni seeni seeni pété cest à suñu kilifa yi diine yi ni ñu defee ba génn nit ñi ci kilifteef bu traditionnel bi andi leen ci kilifteefu diine loolu lu ama am solo la ci sàmm jàmm réew mooy am nañu sëriñ soo xam ne bu nuy wax Sénégalais yépp gis ci seen bopp mais bu ñu nekkoon ci kilifteefu démb kilifa gi buy wax dafa am rek ñu mu mën a waxal ñu mën ko déglu moo xam ñi mu bokkal waaso la moo xam ñi mu bokkal espace la moo xam bokk gi lu ko lal mais kilifteefu diine gi boole na waaso yu nekk ci réew mi yépp boole na tendance yi nga xam ne ci wàllu social la nga xam ne nit ñi bu ñu xesee bokk kilifteefu diine daanaka mën nga wax ne yi leen teqale woon yëpp fàtte nañ ko boo demoon ci civilisation occidentale am na foo xam ne bii boo fa tolloo ci ci ci am-am walla ci dayo du ñëpp ngay toogal dafa am ay espace yoo yoo yooy yooyu dem di yëngal mais fii ngay gis ay nit ñoo xam ne ñii mënal nañu seen bopp lépp gannaaw ndimbalu yàlla nit du mënal boppam lépp yàlla yàllaay dimbale mais ci zahir mënoon nañu doyloo seen seen situation mais boo leen fekkee ci suñu keppaar yi léeg-léeg nga gis leen ci ay position yoo xam ni ay position yu fegge lay doon te day neex ci ñoom dañu ciy bég parce que am na lu leen transformé lu wulli seen xol wulli seen gis-gisu àdduna bee ñu am beneen orienté ñaareel bi mooy ni ñu dajalewaatee Sénégal mobiliser leen damay wax ne bi nga xamee ne kilifa aada gi daanu na kilifteefu aada gi daanu na ñi doon jaamaarloog tubaab bi ñu faagaagal ci ñu bari à partir de 1885 ba. suñu jonn yàlla tey mais sëriñ si fi newoon dafa am liggéey bu mag bu ñu def mooy mobiliser waat sénégalais yi ci ay ay perspectives yu bees ay yoon yu bees ay gis-gis yu bees sanc ay dëkk yóbbu ci nit ñi yar leen ñiy dëkk cosaan yi ñu fi fekkoon ñu conserver ko wëlbati ko jàpp naa ne xaw ma ñaata ñaata dëkk la moo moo sosu ci ci ci al al itaar mais xam naa ne bari na mm-hmm. yi sëriñ bi sas yi yi ñi nga xam ne ay ay ay ñi topp ci moom ak cheikh yeeg ba ba tey jii alors loolu boo ko gisee philosophie wu mobiliser waa réew mi la ñu am benn autonomie ñu orienté leen ci gis-gis nga xam ne dëkk yu bees la yoo xam ne bi ñu koy tabax dañu ko tabax ngir nit ñi ñëw fii jaamu fi yàlla ñu tabax ko ngir nit ñu ñëw fi dundal fi seen àdduna dundin boo xam ne bii dana dëppook seen seen diine ñetteel bi ñu def mooy lépp lu waroon tax waa réew mi teqali ko fexe nañu ba loolu ñu wàññi lool ci dugalante ci sëy ci dugalante ci daara yi ci dugalante ci daayira yi ci dugalante ci zawiye yi ba nga xam ne yi nga xam ne moo taxoon nit ñi bu ñu daan togg démb ci jotaay boo demee kenn ku ne nga xam lan la bu démb ci jotaay boo demee rek kenn ku ne ci wàllu social di nga xam tolluwaayam lan la mais organisation sociale bu bees bi ñu indi dafa fexe ba loolu mu mu mu wàññi ko bu méttee méttee métti ñu dindi lépp luy waral ci seen ci seen ci seen jàngale lépp luy waral nit ki par parloo Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu anhu li mu ci bind ci ay bindam kenn xamut ni mu toll wane ne moom yàlla may na ko yoon woo xam ne wii wu sell la wuy jeg wuy wuy wuy jokkale nit ki ci boroomam waaye am na yeneen yoon yu nit di jaar di wut yàlla te man ko am ah fa kullu wirdin yuradul murida li hadratillahi falan yahida sawaan intama ila aljilaani aw intama li ahmad altijaani aw li siwahuma min al aqtaabi is kulluhum qatan ala sawaabi loolu ñi ko doon wax ci jamono boobu bariwul eh? boobu boo boo liiree boo liiree adabu ñi nga xam ne dañuy yóbbu nit ñi jëme ci yàlla kenn ku ne la ngay wax boo boo boo seetee substance bi mooy li ma yor mooy mooy mooy gànjar gi nga xam ne ku mu ku ku ku ko ñàkk rek ñàkk nga moom mu xam ne dem ci yàlla ay ay bunt yu bari la moom am na benn bunt bu wóor bu mu xàll mais ñi mu bokkal yoon wi aussi am na ay xàll yu ñu xàll xàll yooyu ku ko téye na ci sa xel dal nga liggéey ci mën nga ci am sa borom mais ñu rafetal seen diggante ci kàddu bu may liir minan al baaqil bu sëñ Mouhamad al muy wax ci Seydi El di ko melal dangay xam ne lii ku ko melal ko bokkul kuréel rek maanu nga te yaa ngi yaa ngi wut defaral lan la wax mujaddidu tijaaniyati fi hada al qutb wa imaamuha al wariu assunni ahadu aimati almuslimina wa jahabitati alsaalihina wa qad kaana xarisan ala xifdi alqaraaba alladi tajmauha bi ahmad bamba almakki nee na kii may wax nii fekk ci ci ci nettali bi dafa ñëw ba foo xam ne fii daf ciy wax lu aju ci Seydil Hadji Malick ak Seex Ahmad Bamba radiallahu anhuma mu ne kooku mooy ki beesalaat ak yee ci réew mi mooy imaamam bu sàmm boobu tënku ci sunna kenn la ci kilifa yi jullit ñi bokk ci mag ñu baax ñu sell ñi seeni ngënk ci la bokk mu ne ak xëroon ci sàmm bokk gi doxoon digganteem ak Seex Ahmad Bamba radiyallahu anhuma li ma ci intéressé ci wax ji yépp mooy nangul sa moroom li mu doon jox ko xorma jox ko wàccuwaay boo xam ne bii day tax xol yi gën a jegante koo wax wax ju rafet ju mel nii ci moom mu bëgg la koo wax wax ju rafet nii ci moom njabootam bëgg la koo wax wax ju rafet nii ci moom ku la gis àtte la al ixtiraamul mutabadal loolu ak yeneen yoo xam ni def nañu ko ci feddali jullit yi ni ñu nekk ay bokk innamal muminuuna ixwa loolu li ci sëñ bi jàngale ci ay dem kenn xamut ni mu toll wala tuaadu man raamtu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa allahu loolu mooy feddali bokkub ju bokkub jullit loolu ñun dañu ko woyofal te fekk lu rëy la mooy jullit yëg ne fu jullit nekk jullit mbokkam la loolu liggéey la boo xam ne bii liggéey bu mag la ngir saxal jàmm ji nuy saxal ci réew mi loolu nag boo ci booleeg taxaw temm ngir senegale yi xam li nu doon moom seen bopp ñu utal ko ay tëralin loolu boo ci boo ci boolee yar su seeni mbooloo ci kenn ku ne mu fàtte démb ju ñaaw jëm ci ëllëg joo xam ne ji ju rafet la jàpp naa ne loolu li ñu ci liggéey bari na Cheikh Ahmad ay bindam jàpp naa ne li mu ciy jëfandikoo afawtu wala al afu kenn xamut nu mu toll waaw parce que bu fekkoon ne lu dal ci sa kaw rek nga jog yeneent bi moo wax ne laysa sadidu bi sora walakin sadidu man yamliku nafsahu inda al ghadab nee na man sa bopp ak am doole du ku la tooñ nga yenu dóor ci suuf ne na man sa bopp ak am doole mooy ku la tooñ nga téye sa bopp ba xam loo war a def xam nga ñiy def euh, ñàkk dal boo laajee ñu bari lu leen ci boole xamuñu lu leen génne am na ñu néew ñoo xam ne ñi xam nañu projet bi ñu nekk mais ñu ci bari situation moo leen génn boo xam ne bii xamuñu lu ko waral loolu nag mooy héritage bi ñu am ci démb waa suñu kilifteefu tey héritage ndono loolu moo nekk ci seen loxo ñu sàmm ko ci gën a benn la jullit ñi gën leen dëppale defe naa ne sëñ Saaleh radiallahu anhu màggal yàgg na fi jullit ñi yàgg nañ di ci ñëw waaye jàpp naa ne ci toogaayam ni mu fexee ba kuréelu lislaam yépp di ñëwandoo ci màggal gi te ku ñëw xam ne yaa ngi ci sa kër jàpp naa ne loolu liggéey bu rëy la loolu bokk na ci liy wàññi siisu gi nga xam ne kenn ku ne mënoon nga ko siisu ci sa kuréel walla sa gox walla sa doxalin beneen bi mooy li ñuy tudde seen seen seen seen jëf seen jëflante participation sociale bi ñuy def ngir population yi seen metit fu mu amee ñu bokk kook ñoom kilifa diine yi kenn ku ci nekk boo génn woon liy nekk ci sa kër 24 heures sur 24 heures nga xam ne kooku fardeau social la bu rëy la ci penc mi jàpp naa ne loolu dana am sooxe gu metti loolu bokkul ak nag effort yi ñuy def bu fekkee ne laaj na ko di joxe alal ju bari mënuma tudd mais kilifa yépp mën nga wax ne toujours bu réew mi tolloo ci njàqare ñu joxe seen am-am ci façon boo xam ne bi ñu bari dinañ leen ci roy léeg-léeg sax ñu jiitu ci état Covid bi weesu jàpp naa ne Cheikh Mountakha bi muy génnee la muy génne di ko joxe boobu dispositif sax bi nga xam ne état na ko nga xam ne yor nit ñi ak sàmm leen ci kilifteefam la dispositif boobu sax fonctionnel wul mais ñoom seen jëf pédagogie la ak soññ ndax ku sa kilifa yenu dara di nga xool yow itam lan nga yenu ci wet ga mooy soññ la ak pédagogie ngir wane ne kilifteefu lislaam gi dafa war a yenul société bi seeni mettit ak seeni coono mais beneen bi ci seen participation mooy li ñu tuddee kàddu guy boole li ñu tuddee nun alxitaab wi defe naa ne Cheikh Sidi El Mokhtar yàlla yàlla yërëm ko yokk leeram ci toogaayam xaw ma mooy première kàddoom wala ci kàddoom yu jëkk jàpp naa ne yëwénal na lu bari ci ci ci contexte ba mu ko defee jamono ja mu ko defee ak waxtu ba mu ko defee ak na mu ko defee jàpp naa ne tax na ku ko bëggul woon sax nga am kersa di yëggati kàddu safaan ngir feewala diggante kuréel ak kuréel mais beneen bi mooy taxawaay boo xam ne bii day ànd ak Pastef ci bu crise amee nga xam ni taxawaay la bu feddaliku boo xam ne bii suñu kilifa yëpp taxaw nanu ko ak sàmm gi ñuy sàmm njaboot gi di dalal seen xel différence bi nu am mooy am na ki am na lu kilifa yoo xam ne bu nu waxee nit ñi seen xel dal mais am na réew yoo xam ne yi kàddu guy dalal xel amu fa kàddu yu fay am yépp day xam ba ay wi mais fii suñu kilifteefu diine tàng bu nit ñi jaaxle bu ñu yëkkatee seen kàddu kàddu buy dalal xel la surtout bu fekkee jamono goo xam ne gii am na ay cosaan yu dëgër ak i bànqaas moo dox dox bi wax wax wax gi ba kenn ku ci ne dellu ci li nga delloon dafa am ay këru gëstukat yu bari dañuy wax ni réew yi gën nangu seen kilifteef gu diine senegal ci la bokk te ci xam-xam la ñu koy def du ñu ay jullit ay américain la ak ñeneen te loolu nanu ko sàmm fexe ba sunu kilifteef gi nu sàmm ko aar ko jox ko liy tax wegeelam sax toujours yokk loolu bu ma ko dajalee ak yi ma wax nii damay gis ne loolu mooy rol bi nuy xaar ci kilifteefu diine gi mooy nan lay fexe ba jàmm ji mu sàmm ko aar ko parce que yëg ne moom mooy kilifa réew mi moom lañu jox seen bopp tomb bi may jeexale mooy waruñu yem rekk ci di fay ay tàkk-tàkk mais suñu kilifteef war nañu jiitu xew-xew yi ñu ngi koy def sax di wane fi ñu war a teg tànk te loolu aussi ñiy dogal nangul leen ko mais duñu créer seeni ay rek di leen ko sib nanu leen di déglu ca ba déglu jotee bañ aussi di leen yóbbu ci ñu nangul leen ñoom la ñuy doxal léeg-léeg ñu ñu présenté le mbir moo xam ni nañu koy présenté dañuy bëgg ku leen ko nangul waaye na nuy tabaxandoo procès social bi tabaxaat contrat socialu réew mi réew mi mënul am jàmm foofu lay jeexale mënul continuer di daal te fekk ñenn rek ñoo ko yor bu ma nee ñenn nag mooy ñi am benn gis-gisu àdduna bi ñooñu il faut ñu bokk ak réew mi ñi am beneen gis-gis ñi am beneen gis-gis aussi il faut ñu jëf lu tax ñu boole leen ci mbir mi bu ko defee mbir mi am li ñu tuddee ak dal ak yemoo équilibre nga xam ni dimension spirituelle bi dinañ ko delloo si suñu pénc amul penc boo xam ne bii rationalité rek moo koy doxal c'est-à-dire xelum doomu adama tubaab yi ko tàmbali ñoo ngi ci bëgg a génne mu téleen parce que xelum doomu aadama jirawaale yu ñu nekk yëpp moo leen ci yomb nun ñi yàlla dese ñu am ndono ruux am jàngale lislaam bu am càllale bu am expérience boo xam ne bi ñu ngi koy dund alors expérience boobu dundin googu dañu ko war a bokk ak sunu société mu am jeexital hmm. beneen bi mooy ñu sàmm kàddu ñuy wax ci diine ba nga xam ne kàddu gi dana nekk kàddu guy boole kàddu xam-xam kàddu yar kàddu goo xam ne kii day defar doomu aadama di ko gën a jigéele boroomam di ko def mu nekk waa réew mi moo xam ni tabax réew mi ci loxoom lay nekk waaye aar jàmm ji moom daf ciy fiir aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li fi may jeexale mooy bu nu nelaw ndax yi war a tax ñu jaaxle ci sunu réew bari la waaye nanu liggéey ñaan yàlla dellu ci li ñu wax nii yépp bu ko defee yàlla mën nañu musal aar ñu ci ay yi nga xam ne noongi koy ragal astaghfirullah li wa lakum wa saa'iril muslimin jazakumullah khairan a'uuzu billahi minash shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh kilifa yu tedd yi ci barab bu sell bi noo ngi leen di bu baax di leen ziyaare di leen balu àq di leen ndokkeel ci weer tedd yu fi nekk di jiital ci ziyaare bi nag suñu kilifa yi teew di sëriñ Ahmad al Badawi ñu Cheikh Mahamad Fadil Cheikh Mouhamadou Mourtada ñu Cheikh Saleh Cheikh Abdoul Qadir ñu Cheikh Saleh imaam yi fi nekk suñu xarit di nuyu bu baax a baax euh, suñu xarit oustaz Mokhtar Kébé ak kilifa yi fi teew yépp ñu bëggee lim docteur Abdullah ak Salim sëñ Abou Kébé ak wëllër yi fi nekk yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziare kàddu gi ñuy yëkkati nag ci turu daaira Rawdu Rayaahiin li nga xam ne Serigne Ahmed Albadawi moo ko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 ndax bu ñuy wax tey Rawdu Rayaahiin Serigne Saliou moo tax Serigne Saliou moo doon koo xam ne moo jox ndigal Rawdu Rayaahiin ci yëngutu yi muy def loolu ñëpp fe seede ko ba noppi jàppale ko ci ñaanal ko ci wëlbatiku jox ko tur wi Rawdu Rayaahiin nga xam ne ba muy joxe tur wa dafa nett li fa nga xam ne tur wa fa la cosaanoo nga xam ne tur la woo xam ne sëriñ bi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 ñëw fi def waxtaan wu am solo bii nga xam ne man na ne lii lépp day koy dëgëral liggéey bi nga xam ne moom la Rawdu Rayaahiin di liggéey loolu noonu loo xam ne war naa tax kon ñu teew fi ak mbégte waaye beneen mbir bu war a tax ñu teew fi ak mbégte mooy njabootu Cheikh Saliou taxawaay bi am ci biir Rawdu Rayaahiin jàpp naa ne Serigne Abou Kémi mi ngi ni toog Serigne Khalil Serigne Mamor boo ko limee danay day day day yaatu